ngi di waaj a sifflé Adama fils de Max moom moo la wan ginnaaw ngébboo ngémb lu weex li saa xombal de moom moom nga jàkkaar lool Adama nee na ma demal taxaw nee sori ma may ma la dégg nga may dégg bàyyi jiiri ma ne ko Adama loolu dina neex mbokk yi ñuy jéggalu ci combat yi nga xam ne jot na fee daw yëpp te leen fils de Max moo la wan ginnaaw ngémboo ngémb lu weex li saa xombal moom nga jàkkaarloo ndaysaan moom ma ngay lewaat moo moo xaw tuuti Fils de Max moo ëpp volume tuuti mais Fils de Max aj na garde bi dox ci kawam ndànk ndaysaan bëgg naa xeex bëgg naa bëre saa xombal dóor na Fils de Max saa xombal deux ñoom ñaar saa xombal a ngay déplacé wu ndaysaan dem na latéral ma ngay dem ma ngay dem Fils de Max saa xombal 2. Fils de Max mooy fadal bu Dakar bi. Fils da Max saa xombal numéro. xombal numéro 2 nga jàkkaarloo. Fils de Max moo sol ngem lu weex li. ak Fils de Max ndeysaan. ñoom ñaare ngi noonu sama gaay yi. Fils de Max cokkaas na ñu ngay xeex dóor na dóor na ma ngay rokkas Fils de Max da ngay rokkas laay laax saa xombal fay na dóor mu daanu dóor xombal mu daanu Fils de Max door na ko mu daanu oh Fils de Max Fils de Max door na ko mu daanu Max Mbargane kottu na ko Max Mbargane kottu na ko Max Mbargane kottu na ko ndeysaan Max Mbargane kottu na ko ànd na ak moom génn eh saa xombal